résultats yi génn dañuy rafetlu euh, résultats yi di remercier le comité électoral bi ñu tegoon euh, commune d'arrondissement est bi si Talamine Maodo ndax euh, le coordonnateur Abouba jiite woon ko di ko remercier ci liggéey bi coordonnateur abuba liggéey foofu muy Benno Bokk Yaakaar ndax loolu jàpp naa ni liggéey bi dafa nekk liggéey bu rafet ndax ñoom tooguñu seetaan kër par kër lañ dem dugg di porte porte di wax nit ñi. tey ji boo ñu may tey ñu am ba si talamin ndam bañ fa am loolu dañ koy santee la Benno Bokk Yaakaar ndax jàpp naa ne bañ dikkee ñëw nañu toog waxtaan ñun ñëpp ñu ànd ànd boole suñu force loolu moo ñu may tey ndam bi ñu am si talamin di remercier nag population si talamin ndax ñoom ñëpp génn nañu taxaw nañu ndax taxaw gi ñu taxaw moo tax tey ñu am li ñu am si talamin ndax jàpp naa ni si talamin Maodo Kane taux bi ni mu fa dem dikkee Idriss Seck fu mu dem rawee ay 5000 voix ak quelque tey mu dem balay lay rawee ay 1500 jàpp naa ne loolu ndam la ci ñun ndax am na ñaari centre yi ñu naan daara ja centre ñaari bureau de vote yooyu ñun ñoo ko gañe ñun waa Bennoo Bokk Yaakaar kon jàpp naa ni loolu kon buñ ci gënee continuer liggéey bi jàpp naa ne li ñu bëgg dinañ ko am te buñ duñ ci teggi suñu tànk ndax démb ba ñu évaluer wax nañu ñu war nañoo commencé. continuer liggéey bi te duñ ci tegg seen tànk ba 2017 war nañoo mën a di teg suñuy réunion di réunion di seeti nit ñi pour gën a waxtaan ak nit ñi xool ñu amul carte ak ñu bindagul ñu yóbbule ñu dem binduju pour ñu dem 2017 pour joxaat président ndam ndax bëgg nañ 2017 bu ñu joxewaatee victoire yi fii école si talami ñu ne Benno Bokk Yaakaar jël lañ ko ànd bi moo tey moo waral lii ndax jàpp naa ni ànd bi tey buñ ko booloon boo xoolee amee est beeg ouest beeg yëpp ànd moo tax tey liñ fa am ñu am ko fa te jàpp naa ne ànd bi mooy li war a sax bu ñu àndee doon benn jàpp naa ne président li mu bëgg biir kees dinañ ko ko jox te loolu jàpp naa ni gars yi ñoo ngi ci te duñ ci jógee comité électoral yi Benno Bokk Yaakaar waa kër Maodo Malick Mbaye waa kër Siré ja waa kër Abdou Mbow ak waa kër euh, Pape Siré Dia ñoom ñëpp ñu ñëw ànd ñu ànd doon benn liggéey kon jàpp naa ne lool dafa nekk loo xamante buñ ko continuer jàpp naa ne résultat yi 2017 waxatuñ ko waaye école si dañ naan Benno Bokk Yaakaar gañe nañ ko di remercier nag la président de la République ndax li fi am jàpp naa ni loolu na gën a encourager gars yi xam ne gars yi jàmbaar lañu ndax loolu musu fee am na leen gën a encourager ñu mu mën a dooleel mu dooleel leen gën leen a jàppale pour ñu fexe ñu jëm mille 2017 pour ñu mën a gagné fii biir Thiès ndax département bi ki gis li fa am xam ne département bi waxatuñ ko la le président conseil départemental bu kees wax na ko ndax département bi kenn mësu ko fee gagné tey bu ñu demee ba Benno Bokk Yaakaar gagné département bi jàppale na jàpp naa ni loolu sunu ndam la te sunu ferte la loolu dañ ko ci dañ ciy sant la Benno Bokk Yaakaar nekk ci département bi ak maire yi nekk ci département bi di leen remercier seen taxawaay ak seen seen seen seen engagement bi ñu engagé pour jàppale le président de la République di leen wax nañ gën a pour ñu fexe ñu gën a renforcer biir Thiès ñu jël ko takk ko jox ko président de la République. noo bokk yaakaar ànd nañ ci ndax abu grand bu la te jàpp naa ni loolu buñ ko gënee continuer liñ bëgg si tale mi dinañ ko am ndax si tale mi ñun ñëpp fa lañ dëkk waaye ku nekk xam nga yaay kan kon dañuy jàpp ni Cité Lamy jàmbaarte di gërëm waa Cité Lamy population bi ñëpp génn nañu taxaw nañu jàppale le président de la république kon jàpp naa ne bu ñu gënee góorgóorlu Cité Lamy waxatuñ ko waaye na kan bu ñu waxee ëllëg dañ naan président de la république gagné na Maodo Kane te loolu lañ bëgg ndax mooy école bi gën a centre bu gën a mag ci biir Thiès loolu lañ amoon tey ñu ne tey dinañ ko leeral euh, population bi wax ni na ñun suñu comité électoral réunion nañu évaluer nañu wax nañ faa yi wax nañ continuer te liggéey bi nag ñoo ngi ci duñ ci tegg suñu tànk dinañ ci gën a continuer gën cee tax ànd ceeg suñu coordonnateur Abouba ci commune d'arrondissement waaye mooy population li may lancer message bi mooy nañ gën a góorgóorlu gën a liggéey pour 2017 bi biñ jëm ñu jéem a jox président ndam biir Thiès gën ko ndax am na yaakaar biir kees te jàpp naa ne bu ñu gënee góorgóorlu président fii bu ñu netee eh, bu ñu joxatee résultat yi Thiès a ciy jiitu ñu ne président Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar jël na région kees te loolu la ñu soxla. ndax département bi waxatuñ ko waaye dëkk bee de région bi fii moo des biir si biir dëkk bi te jàpp naan loolu ñoo ngi ci gaa yaa ngi ciy bay seen waar te jàpp naa ne dinañ ci gën a taxaw bu loolu weesoo nag waa comité bi dañ ma ne woon naa gërëm la DG de la poste Pape ndax mooy commune mooy sunu coordonnateur es te coordonnateur S la mu appuyé na Euh, euh, vingt pôles yi ñu tegoon ci est bi yëpp moo leen app appuyer jàppale leen te jàpp naa ni loolu dañ ko ciy ñaanal di ko wax la président Macky Sall di ko wax ne Pape Siré Dia jàmbaar la lu mu ko gën a mën a renforcer na ko renforcer ndax jàppale na commune d'arrondissement est bi ko joxoon taxawu na gars yi ba élection yi ni mu jeexee taxawu na di ko remercier na ko gën a jàppale gën ko taxawu ndax jàmbaar la te jàmbaar la ci dëkk bi jàmbaartee moom jàpp naa ni kenn waxatu ko ndax gis nañ ko li muy def ci nit ñi ci lu baax ak lu muy def ci nit ñi kon moom président da ñor looloo taxoon dinañ ko remercier di ko wax ne président da ko gën a taxawu ndax jàmbar la mënoon naa toog seetaan waaye seetaanul dafa jàppale comité bi jàppale vingt pôles yëpp li ñu war a am lépp mu jox leen ko jàpp naa ne loolu ndam la gars yi dañ ma waxoon naa ko remercier te dama koy remercier ndax man dinaa ko remercier ndax mooy sama directeur di ko wax ne nag bu mu gën a bàyyi est bi na gën a taxaw waa est ndax dafa nekk zone boo xamante zone bu gën a moo gën a sensible ci zone yi mu gën leen a taxaw ba résultat yi ñu bëgg a 2017 mu bay ci waaram bañ am ko ci biir dëkk bi fii